xam nga Sénégal dafa bokkati ci kuréel bu mag bu tudd RAFPRO bu nekk réseau loo xam ne fii ci Afrique la nekk am na fukki pays fukki dëkk ak ñaar yoo xam ne ñoom ñoo ko composé ba pare nag dëkk bu nekk am fa benn institution de formation bu mu dugal mu nekk RAFPRO Sénégal nag moom daf ci am ñaar. muy ONFP ak 3FPT bu nga xam ne tey sama xarit sama jigéen mooy madame Sophie Diallo bu def liggéey bu baax vraiment moom moo moo ko moom moo ko dirigé. léegi nag euh, RAFPRO boobu dafa ne woon dafa am ay euh, dafa dafa am dafa tëral ci tëralinam dañoo wër dañoo war a wër dëkk yëpp fu ci nekk ñu dafa ay session de formation bi yoon nag Sénégal moom moo aye def formation ci li nga xam ne mooy li ñuy wax approche par les compétences. approche par compétence boo ko déggee nag moom mooy dañuy fekk xale bi dañuy dañuy saytu xale bi ci lu mu mën nekk rek ci lu mu xam waaye ci lu mu mën xam nga Afrique boo koy xool ñi xam bari nañ l'Afrique a toujours fait dans le savoir ñi xam bari nañ waaye nag ñu mën moo bariwul ñu mën moo bëriwul Sénégal nag ak Afrique boo koy xool xale yi mën malheureusement dafa mel ni système bi sax reconnaître loon woon di nga mécanisien bu juddu nekk mécanicien wala menuisier moom mën na boo ko joxee oto dina ko liggéey boo ko joxee bois dina ko dina ko liggéey waaye moom dafa mel ni système bi daf ko xawoon naa biddi waaw approche par compétence nag moom mooy ñi nga xam ne ñoo ngi nekkoon ci situation yooyu ñooñu la ñuy gën a jox doole gën leen a former gën a formaliser li ñu xam ah, ba pare nag jox leen kayit kayit moom mooy titre de qualification kayit boo xam ne dafay mel ni licence la boo xam ne dañuy reconnaître ne ñëw léegi ñoom mën nañ lii mën nañ liggéey ci entreprise bi mën nañ leen financer ñu def lii. loolu atelier boobu nag ah, moom la ñu bëgg def Sénégal ci fukki fan xool xale yooyu bu lañ naree saytu fan la ñu jaar ah ba nga xam ne saytu bi dina dina dina ñoŋ. dañ fay teewoon euh, ci ndaje euh, RAFPRO moo xam ne ne moom mooy kuréel bi nga xam ne nekk dafay mboole institution ak. Euh, fon yi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllum financement ci dëkk yu ne donc fukki ñaari dëkk lañ ci am Sénégal nag moom compté na ci ñaari membre donc muy ONFP ak 3FPT moo waral tey ñu am co bi nii tey ji nii président comité bi ñu tegoon nag ONFP moo koy diriger tey ñu ñëwoon ci ubbite bi boo xam ne ne tàggat ñu nekk ci wàllum approche par compétence tàggat ndax am ci am métier tàggat ci jëriñu loolu moo waraloon tey ñu ñëw ñu ne nag ci wàllum tàggat boobu nag dañuy seetlu nekk jamono dafay dox tey am na ci métier yoo xam ne yu bëri yu bees tàq lañ parce que digital bi moom moo ñëw nag rax ci lu bëree bëri donc ñu ne Sénégal dafa toll ci nekk dëkk boo xam ne dañ ko war a tabax tabax ñu ngi nax taggat ndax pétrole et gaz tabax ndax mine baa ngi fi tabax ndax tali ñu war a defar tabax géologie bi ngi fi waaj a ñëw stade yi cetera te loolu yëpp def ko ay métier la bu ñuy xool ñi fi li ñuy war fii yëpp nii vraiment ay métier la ñoo solo ay yére dañoo neex ci benn bâtiment ay caméra ak loolu yëpp wàllum tàggat la ak ay métier mais métier yooyu dañuy seetlu ne nekk dañoo évoluer bu njëkk ba boo daan del benn nataal da nga daan dem ci labo bi ñu génne ko et cetera muy jël temps mais léegi gis ngeen ak numérique bi wàññeeku na ñu gis ne même tailleur yi léegi jublu nañ ci affaire digital bi ak broderie numérique ñu ne même ci tàggat bi sax même booy dem permis conduire di nga dem ba gis na ne que ñu ngi lay tàggat te doo sax soxla yenn nga del oto parce que am na ay simulateurs yu existé donc digital bi dugg na sunu kër yi dugg boo xam ne ne dem nañ ba yow tey mën nga def caméra de surveillance sa kër nga nekk sa biir liggéeykaay sa xel di dal parce que mën nga xool kër ga ndax lépp mi ngi si jàm et tout donc c'est pour dire que bi dafa nekk loo xam ne lu am solo la tey jii ñun dañoo ne nañ dañoo am ñetti pàcc yoo xam ne dañ koy sóoraale suñu suñuy tàggat pàcc bu njëkk bi moom mooy ne secteurs yi secteurs yi nga xam ne dañ koo teg ci muy ne Sénégal ay secteur prioritaire bu ci gën a am doole mooy agriculture après ñu ne artisanat après ñu ne miin a ngi fii ñu ne inf tourisme mi ngi fi ñu ne tamit les industries créatives et culturelles ñu ngi fi transport mi ngi fi tamit ñu ne bu loolu weesoo tamit dafa am beneen pàcc moom mooy ne équité territoriale fu ndaw ne fu waaye mënti ne rek war nañ ko fa mën a fekk jox ko formation bi ñu ne tam dafa am inclusion sociale inclusion sociale bu ñu ko waxee mooy ne noo mënti mel ci nga bokk muy ne jigéen nga muy ne góor nga muy ne ndaw nga muy ne mag nga muy ne da nga am handicap nga jàngi mosoo jàngi say waajur dundatuñu da nga benn laago yooyu yëpp dañ ko ciy boole ci lañ jëlee albinos yi ci lañ jëlee migrants de retour yi ci lañ jëlee ndongo daara yi ci lañ jëlee soldats libérés yi ñooñu ñëpp suñuy ay cible la yoo xam dañ leen di gëstu bu ñu jëlee ñetti pàcc yooyu noonu ñu ne ci yam rek il faut que tam ñaari dimension yoo xam dafa am solo ñu boole ko ci moom mooy le digital côté numérique bi mais également ñu jël ne ne que côté développement durable ñuy gis ne changement climatique yi am na yëngute yu bëri yu am loolu moo waraloon tey nag ci ubbite bi ñu wax ne ne que ah tey ne naam yéen a ngi liggéey ci loo xam ne nekk approche par compétence la ñun ñëpp dañ ko cee bokk ay réew yoo xam ne ne normalement dem beeg dikk bi dafa war a yomb mais ñuy ñaax nit ñi rek ñu jàppale ñu de telle sorte que niñ koy defee mu standardisé wu ak juróom juróomi dëkk yi nga xam ne ñoo fi ñëw ci fond bi mais également niñ koy fayee coût bi njëg bi tamit ñu jëm ko standardisé de telle sorte que ku jóge fii mën a dem fële sans problème tamit ndaw bi bu amee fii diplôme mën ko am mën a bokk feneen tamit maa ngi di gërëm di leen sant